Moustapha jaxate lañ koy woowee turam dëgg waaye nag tur wi lu muy tedd tedd jëmm ji moo ko gën a bon te yàqu lay génn ci làmmiñam xaj ji sax duñ ko mbow lu bon rek lay wax waaye jëmale ko ci Ousmane Sonko mi nga xamante ne defu ko dara ndax booy seet sax da nga naan ñii ñaar fan lañu jàppante ba saay bu génnee rek ci ay sorteem usmaan Sonko Pastef ndaw ñi di leen xas moom kàddu yi mu yëkkati woon jëmale ko ci jëmm ku tedd ki seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ ca jaaraat waaye nag kàddu yooyee ci boppam bu ko tuubul ba dee ah yàlla xam lay xew ëllëg ndax lépp mi ngi ci loxo sunu borom toog muy dox bi nga xamante ne ñu bare nga koy wax nee tax ñu koy wax du sëriñ du kilifa diine du imaam mooy ñi nga xamante ne ku mel ne Adja Mbaye doomu elma El Hadj Mansour Mbaye di ñaareelu Farba Ngom fukki at ñaar mu am post boo xamante ne foofee ci RTS te tegu fa tànkam ñu mel noonu ñoo tax ñuy wax ak moom ña mu daan tudd ci vidéo nga xam ne dañuy toog di saaga ay influenceurs yoo xamante ne defuñu dara di am ay salaire mbokk yi balaa ñuy sori sax nañu déglu Moustapha Diakhaté Diakhaté sax la wax dellu si waat bi muy amee nag dafa am na ci lu beneen coow bu ci jóg mooy li ñu tuddee toog muy dox mu mel ne dañoo dañuy wax ne ilimaan yi da ngeen a toog muy dox wax na sànq ne ilimaan yi ñooy jiite ju jàkk ci jàkk yi julli ñooy takk si yi ñooy jullee néew yi kon ñooñu tooguñu am na fu ñu féete askan wi mais fondamentalement baatu toog muy dox li ko tax a jóg mu ngi jëm ci kilifa yi diine tarixa yi ñooñu dañuy waxal euh, man nag li ma jàpp mooy toog muy dox moo gën fen muy dox dox muy dox moo gën mortal komba muy dox toog muy dox moo gën gatsa gatsa muy dox toog muy dox moo gën cuuki muy dox faatu Ousmane Sonko gu waa Pastef ak Assane Gueye lu ñu am ci politique la ko may mooy fen soos yàq det ak yëf fii limaan wóoteegu fi mortal combat ba mbooloo faatu ci ilimaan ak wala sëriñ woo dégguñ fi mortel combat ba ñu taal fi ay Auchan ak i station Total yàq fi alalu état bi taal fi université yàq fi alalu doomu jàmm ak alalu doxandéem toog muy dox mu gën jaar ci ay bàmmeel ba comme ni ko waa Pastef muy dox moo gën téeméer yoon nga yàq ay alalu jàmbur muy Auchan moo gën nga yàq muy BRT ak TER ak université bi ñu doon taal ak yeneen tok muy dox mo gën comme ni waxe legi léegi bammel ba dugg pale na na wax jooju na jàpp naa ñi ko mom xeyna moy mooy kilifa diine man day dama gëm ni bu fekkonté te kilifa yi diine dañoo toog muy dox kon tay Sénégal du am 95% de musulmans te loolu bu ñu ko amee le à Serigne Touba ñu le devo à Cheikh Sidi malik ñu la devo ak ma abla Niass ak wa ko Cheikh Omar Fouti waa ak waa waa xadri waa kon ku japp ne sëriñ si dañoo toog muy dox yow da xamul sëriñ si la ñuy def buñ doon toog muy dox jumaay Tuubaa jee jëmur yi duñ ko tabax seen bopp buñ doon toog muy dox université bi sañ mën taxaat moo ko rek bëgg dem duñ ko fa am buñ doon toog muy dox Masaalikul ko tabax kon encore une fois baat boobu dañ ko war a teg suuf sëriñ si tooguñu muy tox parce que bu Sénégal di dox ñoom ñoo tax wala boog am na lu mag a mag bu ci joué booy wër mag mu wéyu te ñàkk xam boppam jàppal jaxase ndax turam jooje sax ëpp nay wax di ca tudd lenn li moom bu wormaalul boppam ñu wormaal tur bi waaye jëmm la joo xamante ne yàq rek moo ko tax a jóg ci réewum senegal mag la moo xamante ne waxtu wi defar rek la waroon def waaye fu mu toll ma ngay yàq ma ngay wax lu bon ma ngay wax lu ñaaw di ko jëmmale ci ay gor yoo xam ne lañu def ci réew mi moom def ko moom kàddu ya mu yëkkati woon da ko wax Macky Sall mi mu àndaloon te defal ko lu ne keneen ku mu wax ak Abdoulaye Wade bi mi nga xamante ne buñ ko xamee ci wàllum politique moom la keneen ku mu wax lu bon jarul mer waaye ki wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kàddu kookee ci boppam ndax jar naa tontu waaye lañ ci jublu mooy ñoom ay yàqkat lañu waaye diaboliser nañ ba sonn lépp dara doxuti wax nañu ci kilifa diine yi dem ngir wax ne Ousmane Sonko ak ñamu àndal gëmuñu ay sëriñ gëmuñu kilifa diine wala sax ay salafis lañu ay terroriste lañ waye lolé dexul jàllul ndax it ci li nga xamanteni moy élection yi kër kilifa diiné yi Touba Mbacké Ndiassane Niassène dem ba Tiwawan fo dem Ousmane Sonko dal ak passif gagné nañ fa ñooñee ci bopam bu fekké ne gëmuñu kilifa diiné yi japp na né këru kilifa diiné yi bëgg nañ Ousmane Sonko lool Ousmane Sonko nak yalla ko xar manam yalla ko def du moins ci xolu jamm ñu bëgg ko momité mu jub jubal comme li muy woote loolu rek a tax ndam rek lay am.